jóg ñooy doxal bal baa ngi daw bal baa ngi daw ma nga ca góorgóorlu Malick Mbaye ma ngay dem bas ma ngay centré ma ngay centré perte na bal ñaareel bu cornel boo xam ne ñu ngi koy am ci jogante bi nga xam ne mooy Génération Foot ak équipe bi nga xam ne mooy waaye ñii di waa Dakar Sacré-Cœur aussi am nañu taxawaay boo xam ne bu jekk la ci ginnaaw ngir mën a wattu seen bopp et seen i caax bañ a boy nga góol bi muy noonu di trois joueurs devant le but et le reste euh, euh, va faire euh, la surveillance parce que amul surveillance que chacun surveille quelqu'un et qu'on prenne les deux poteaux pour se sécuriser le corner est parti deuxième poteau c'est trop fort la balle n'est pas sortie ah avec second ah, oui